nopp bi nag bu nu waxee nopp ni nga xam ne moom lañ si gën a gën a wax mooy nopp bi bàyyiwul kenn kenn kenn kànnaar bi boo ko xasee am ba toog sa ba këral ku la neex mën nga koo woo waaye nañ si bañ di caaxaan waaw ndax kànnaar bi moom ku mu tëj caaxaan du la ubbi bu dee tubaab ak lu mën di doon ndax kànnaar bi eh, téere bi ah, ñu siy def fa am nun koy bindee ndax dañ siy bind baax baaxaa bind si aaya kun fa yakun yi boole koog moom mun nag euh, kol gu xonq gii ngeen di gis daa am koy jëlee moom lañ koy awee waaw képp koo ci woo koo soxla rek da ngay toog fi nga toog nga dugal caabi ji tudd turam tudd ko woo ko ñetti yoon mu ñëw waaw moom moom bàyyiwul kenn waaw di gën a wax rek ngeen gën a euh, abonné si chaîne bi ndax joxagul leen dara dara dara joxagul leen ko ba tey ba tey ba tey tamit comme chaque jour ni ma koy defee lekk li may wat si wàllum wërsëg si wàllum koy lijjanti place sa bëgg koo am nga xam ne tey jii danga bëgg place place bi dong tax laa jóg nanga nga bàyyi ba nga xam ne suba ngay dem nga julli sa ñaari rakka rakka bu njëkk bi yaa ngi jàng benn faatiha ak juróom-ñaari isaa jaa am nasrullahi wal fathu wa raayta naas yadxuluuna fi diinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaxfir innahu kaana tawaaban juróom-ñaari yoon nga koy jàng ba pare nga jàng benn alam nasrax laka sadrak wa wadaxnaa anki srak allasi amxala sahrak wa rafaxnaa laka sikrak fa inna maa nusri yusran inna maa fa isaa rabbika farxab nga jàng ko juróom-ñaari yoon boo sëlmalee nga def istixfaar téeméer nga jël sa kurus sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad 624 sallallahu ala muhammad 624 nga tudd turu ki nga xam ne danga bëgg liggéey ci palaasam wala ki nga xam ne danga bëgg ma jox la xaalis wala ki xam ne danga bëgg seeni wax doon benn yow yaa yow yaa yow daal yaa xam li nga bëgg ci moom nga wax ko boo ko benn yoon nag nga koy baamtu moo tax saa bu dangay julli kii bi rek def istixfaar bi def sallallahu ala muhammad waaw di wax ngeen gën a abonné képp ku si amul loolu la leer boo nu wooyee si numéro yi danañ la ko leeralal si kàttanu yàlla kon nag ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di siyaare ñépp rek ñépp ñi xam ne ñoo nuy teewlu ñu ngi leen di siyaare bu baax